xayri xadimihi wa ala jamiil anbiyaa wal mursaliin wa man tabiahum bi ihsaan ilaa yawmi ddiin amma ba'd assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu e, nuyoo bi ñu koy jooyal ci kilifa kilifa yi mu di Cheikh Mouhamadul Mountakha jéggul ci kàddu yi di jéggul yi itam fukki fan benn ci novembre ñu ko doon feete wax dëgg yàlla mu doonoon victoire wu Sénégal yëpp bu ko tëdd ki jógee ci géej gi li tax ñu koy jéggul nag mooy yëngu ba ak ndaw ñi ndax fi nu ko defee ci Daaru Manaan ci Touba doon ci sargal xalifa bi ñu ngi ciy sant baax di ci sant sëñ bi ñëpp bëgg nañ ci waaye nag dañuy bëgg incha allah bu ñu ko fekkee wet jàmm ñu koy defee njaareen wala yooyu ndax itam daal war ma ji waaw njaareem yaatu na te am na spirituel am temporel et ñu seetloo ca virage ba dama ba ca virage ba fi bi daan jaar li féete si yoonu Touba loolu mooy spiritualité bi la féete na rek na xam na ni au temps des colons l'administration française sénégalaise foofu la ñuy installé kon defe naa ne bu dellusee man nañ koy defee jaarim ndax itam nañ jaarim la yow waxe woon ni kun fa yakunu bi bam sa chin min rabbil habibi ila abdil mahbubi tàmbalee ko kataba rabbi lahu anniya muhibbu li zikrihi wallahu kulliya yuhib ca la waxee madda liyal xaqul mubinul xaqa ubil xiyaaram ulama araqa kon ginnaaw bi mu santee sëñ bi jéggul yi itam yëngu-yëngu ba ak xerteeg ndaw ñi ba noppi nu war a wax nag waa réew mi yépp bu ñuy wax ci ku tedd ki daanaka jarul ñu naan murit jarul ñu naan tijaan jarul ñu naan katolik ku tedd ki pour ñëpp la ngir irham jami alwara moo bu ñuy wax dañ naan yi ak sénégaliyuun wa sénégaliyiin góor ñeeg jigéen ñi si xaaran wa kibaaran ñëpp lañuy ñuy waxal ku tedd ki pour ñëpp la ñu bëgg rek ñëpp xam ne delloo si xel yi jot na sëkk ci Matlabul Fawzi da ngeen Ibrahima Khalil Moustapha Hafsa waaw li mu développé fàttali Matlabul Fawzi ni keroog ci bis bi ñu ngi koy sant di sant kilifa yi fa teew yépp di sant ñi nga xam ne amoon nañ yéene te egsi wuñu di sant njiitul réew mi di sant wasiiru daaxiliya ministre de l'intérieur waaw cant day am cant yoo xamante ne bi bu jaaree ci kilifa ga ñëpp jot nañ ci spirituellement bu demee ci xalifa bi ñëpp jot nañ ci temporellement bu demee ci président bi ñëpp jot nañ ci loolu la ñu woon mënuñu ko ñàkk a bañ a ñëw wax ci wetu temporel bi waaw ndax itam lu nu ñor la mim réew jamono bi ñu toll wax dëgg yàlla wu wuñu fii li ñuy tuddee inti xabaar élection déedéet soxlawuñ ko fi lan lañ soxla vérité absolue la wax de waaw dëgg yi fii xew yépp yi fii xew yépp ci vérité relative lay xewee waaye nag wax naa léegi bayit wi ca bam sachet ca xasida ba maddaliyal xaqul mu biinul xaqa mu xeeral ulama araqa ku tedd ci ndem moom laa yàlla jox vérité absolue ba savant yi bu ñu doonee savant dañu koy soog a soxla mu doon seen escalier wax naa ko ci léegi dawlatul xaq moo jot ci réew mi état de vérité moo jot état de vérité nag mënut a ñàkk ay réforme mun a ñàkk ay réforme wala référendum président bi ñu ngi koy ñaan mu wax ak ñi mu ko seqal ñu di ay responsable politique ñu xam ni réew mu fi mu toll laajul ay élection présidentielle li mu laaj mooy wax ak peuple bi référendum la laaj ba xam waa Sénégal nangu nañ projet de société ku tedd kii wala nanguwuñu ko ma ko laaj Sénégal yi le réalisme africain une nouvelle doctrine une nouvelle pensée tirée de l'enseignement de notre savoir ici-bas et dans l'au-delà na ko laaj Sénégal yi nañu ko laaj Sénégal yi ba xam nangu nañ loolu bu ñu ko nangoo ñu def ay réformes changé constitution bi bu ñu ko nanguwul bu fekkee ne nee nañ élection yi ñu daan def rek ni ñu ko daan defee la ñu koy defee noonu on est prêt pour choisir un candidat boo xamante ni bi dafay accepter suñu projet de société. pour ñu gagner élection yi dès le premier tour. ndax Touba d'abord moomu ñor wasalaam.